Sonko moom dox jëm fële Saint-Lazare ñu dem xool ndax ndaje bi dana am foofu ndax euh, leader mu gën a ñëw. daanaka jëm euh, Saint-Lazare. Ah. Penda wala Penda Sokone Diouf mbokk internet ñu ngi ba léegi di wéy ci direct bi ñu ngi jëm Saint-Lazare fa jëm xool situation bi yéen a ngi dégg ba léegi ay ay buum ah ay lacrymogène yu ñuy dóor fële ci foire ba léegi yéen a ngi dégg jàmmarloog nit ñaa ngi dox di wéy circulation bi reprendre na ñaari sens yaa ngi daw waaye ba léegi takk der ñu ngi ci kaw VDN bi ah, daanaka 100 boo dox rek di nga seen ñaar ba ñetti pick-up ah, ñu ngi taxaw fees dell ak ay gendarme ci kaw ah, ak ay ngandaay yu takkoo takkoo takkoo ah mbokki Sénégal mu ngi dund mu ngi euh, dimanche 4 février mu doon doonoon nag euh, bës boo xam te ne moom la waa opposition bu woote woon ndaje gannaaw ba président Macky Sall jëlee dogal démb samedi daqal élection yi ñoom ñu ko doon ñaawlu démb ba ñu amee ndaje ak taskat xibaar yi ñu woote woon nag tey askanu Sénégal ñëw génn jàmmarloog euh, acte bi Macky Sall posé daqal élection yi ñoom seen kàddu rek ba tey ñoom. ñoom ñëpp d'accord ne tey dañuy amal dañuy amal dañuy tàmbali tey seen campagne ndoxte euh, même élection amul waaye dañuy dañuy dañuy dañuy amal seen campagne tey la ñuy tàmbali ñu jàpp ne rek campagne électorale euh, tey la waroon tàmbali benn waroon démarrer waaye démb le président dakkal génnee décret ne dakkal na organisation élection yi moo tax tey di ngeen dénkal ci kii bi micro bi nga jox ko ma jox la nga téye caméra bi comme ça ma changé ko teel teel ko nii rek nga koy teel nii rek doxul doxul doxul 정도 নেকো বি আমুল লোক আমুল লোক আমুল লোক ও ও ও 거잖아. 너무 내려. 너무. 너무 내려나? 너무 너무. Okay, I'm gonna go there, I'm gonna go there, I'm gonna go there. Non, non. Voilà. taxaw nii euh, jàkkaarloo yéen fi nga xam ne mooy station Shell bi ci deux yi bii jëm euh, euh, VDN bii jëm bi nga xam moom mooy deux voies bu jëm la jëm bi ne ko ko am jom parce que lii mu def nii bu buñ ko bàyyi mu réussir dictature lay def nii 2035 ba mu wax da ko toog ñu waruñ nangu bépp Sénégal te da ngaa jóg sacrifice bopp ñëw fii ci biir nit ñi ci biir mbooloo mi. comprendre nga naqarlu ko comme ñëpp opinion internationale bi yëpp xam ne Macky Sall mi nekkee du yoo dëgg du yoon bu xawfu ni dañuy takk gën def ñu fi ñi kilifa dina yëpp faatu noonu nekk ay nante ñoo fi nekk donc kon waruñu koon wàcc muy def lii mais kenn génnul mais les Sénégalais, yi ñoo suba en masse dëkk bu bu kenn liggéey bu kenn xëy bu kenn gon ñu ko sap parce que limu mu du dëgg du yoon ñun depuis 3 h ñu ngi fi may ñuy jamm ñuy salaam lakkroma suñu 3 h ba ñu ngi bëgg a té te ko ay quelques groupes ñoo nango jog ñu ci tok seen kër tok té loolu du yoon ñun ñëpp en masse ñu ndoko ko parce que waji solo parle a neexut muy na ñëpp jóg na sénégalais yëpp jóg man loolu la ci am may wax Merci. Euh, c'est Dakar TV, Dakar Actu. Merci beaucoup. Donc, euh, je suis. D'accord. D'accord. Je réponds au nom de Sissi Alune, le coordinateur national du Parti conservateur. Euh, parallèlement, membre du bureau exécutif de la coalition du Mai 2024. Alors, je juste qu'il faut comprendre à l'opinion nationale et internationale, <clears throat> que le Sénégal aujourd'hui est en train de passer des moments cristaux de la vie, de l'histoire de notre pays. Nous, sommes, nous avons un président qui a terminé également son mandat et qui veut également imposer aux Sénégalais ce qu'on appelle un royaume, ce qu'il faut dire. parce qu'aujourd'hui, euh, Macky Sall, le discours qu'il a tenu face à la presse sénégalaise, c'est pour le montrer ce n'est même pas un report d'élection, mais une annulation d'élection. Il faut dire les mots, il faut déchiffrer les chiffres. Alors, il parle d'une annulation d'élection. Et nous, en tant que la jeunesse consciente, euh, digne également de son nom, euh, étant conscient de la situation actuelle de ce qui se passe dans notre pays, il, il est l'heure, l'heure de la révolution a sonné Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui euh, oh, il faut s'engager quand l'essentiel est menacé. On a dit, euh, dans la date, dans le slogan également, qu'on euh, le disait Ousmane Sonko, comme il l'a dit, parce qu'il avait une fois dit dans, l'entente de ses propos, Macky Sall, si quelqu'un attend à ce que Macky Sall fasse une passation de service avec, avec son prédécesseur, jamais au plus grand, jamais cela n'aura lieu. Donc nous invitons Ousmane Sonko à a raison sur toute la ligne. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison qu'il avait, qu'il avait sensibilisé massivement la jeunesse sénégalaise de se tenir debout, de faire une résistance. Donc cette résistance aujourd'hui, c'est l'heure de le montrer. C'est l'heure également de montrer aux Sénégalais qu'il faut faire face à Macky Sall. Macky Sall est dans un régime finissant, un régime également qui a montré toutes ses limites, toutes ses compétences, qui ne peut plus. Macky Sall n'a qu'à partir. Pourquoi son ministre avait démissionné Latif Koulibaly, il avait démissionné. Pour quelle raison Parce qu'ils savent très bien, ils sont conscients de ce qui se passe. L'enjeu aujourd'hui, c'est quoi C'est de sauver le pays. Oublions également nos statuts en tant que quoi que ce soit, que vous soyez n'importe qui, que vous soyez ministre ou DG ou député, regardez d'abord l'intérêt des Sénégalais. Le Sénégal est en train de passer un moment crucial de sa vie. Nous invitons massivement à Macky Sall de retourner également, de comprendre ce qui se passe. Nous, en tant que la jeunesse sénégalaise, nous disons à Macky Sall de faire un retour en arrière. On fera face, quel que soit le prix après. Et nous sommes prêts à donner corps et âme pour montrer à Macky que nous, on n'a pas peur de ce qui se passe aujourd'hui mais monsieur, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce qui se passe, regardez, prenez euh, derrière moi ce qui se passe. La VDN, elle, est, vide. L'Assemblée nationale aujourd'hui, ce n'est pas présenter une Assemblée représentative qui doit également faire comprendre aux Sénégalais que nous sommes là pour un Sénégal émergent, que nous sommes là également pour un Sénégal digne de son nom. Mais aujourd'hui, ce que les enfants, c'est pas ça. Le Beno Yakar et euh, l'intercoalition PDS, ils sont là également pour l'intérêt de leur coalition. Ils sont en train de préparer également une future coalition libérale que les Sénégalais ne ne, ne vont pas le laisser. Donc, ce qu'il faut comprendre, sortez massivement, faites face également à ce dictateur Macky Sall qui est en train de nous montrer également ses limites. Merci et faites passer également l'information aux Sénégalais que vive la démocratie sénégalaise, vive le Sénégal. Vive la démocratie, vive la vive le peuple sénégalais Moi, ay qui qui coordination avec Bassirou candidat 2024 moi ay kàddoom mi ngi euh, rassemblement mi ngi woo askan bi génn massivement euh, ngir Jamar Macky Sall teg ci kaw askan bi fu la suba ca assemblée nationale kon donc ñu wéy ba légui fële ci Saint-Lazare xol situation bi fële euh, nu fa nu mu fa tëddee sànq ay 15 h ñu ngi fofu foofu ah, waaye fa la jàmmarlooy ndaw ñi daw tason dugg ci bir koñu foire yi gendarmerie dàq leen ba fële ci pont foire ba jàmmarlooy mi ngi wéy nak bor bobu ñu ñu avancé xol Saint-Lazare xol ay ay euh, am na ñu ñu génn ñuy jóge côté boobu noonu ñu ñuy dajal ñu ngi avancé di génn ñu ñëwoon ci manifestation bi mooy ñu ngeen jot ah, sol ay maillot Sénégal ñoom dañu ñëwoon ci rassemblement bi finalement ñu ngi ñibbi ñoom ngeen ñu dajal noonu avancé bu bëri ñu génn mu mel ni lii nii gëjoon na fi jamono yee passé la fi gëjoon ba tey jii mi a dox dooraat ñu ñaan yàlla jàmm am ci réew mi bañ cee ñàkk bakkanam ñu ma yaay doon noonu di di di dégager voie bi pour bëgg gars yi jàll activité waaye boo dee seet boo jëmee ca fi nga xam ne moom mooy onance mooy lonance dañ koo taalaat bëgg noonu auto convention bi moom lañ taxawaloo zoom may ma amix jàpp nañ convoi bi noonu auto auto sëriñ buub la doon benn cortège bu doon dem auto sëriñ bu convoi sëriñ buub la woon ñuy tëf gis image yi ci Dakar Actu benn convoi bu doon jàll ñaari piro bi jiis jiitle woon maa ngi gis ñu tab ci ay photo Serigne Mboup ki nga xam ne moom mooy maire Kaolack mais gendarmerie da leen arrêté kenn ki oto benn oto bi daal di daw ñu jàpp benn oto bi non man jàpp jàpp nañ ci ay nit ñu ngi leen di noon di leen génne oto yi oto bi ñu leen jàpp juste station bu nekk Ouest Foire ñu leen jàppee juste station Shell bu nekk Foire jàkkaarloo gendarmerie Foire bi amul benn pick-up bàyyi noonu ñu taxaw ci intersection bi noonu wàcce nañ leen daal leen di yóbbu xam fu ñu leen di yóbbu nag waaye wàcce nañ leen oto bi. carte boobu Macky Sall xëy na sëñ boobu nekk ci oto bi xam naa ay militant la sax la amul article sëñ bi fi mu toll nii réew amul kii amul kaa fi mu toll nii sagaa seen institution yëpp kenn respecté wul avocat kenn respecté wul justice kenn justice dogal dara ba pare administration du ko du ko dogal waaw parce que fi mu toll nii maanaam da nga naan ay xalifa sunu raam da nga xalifa sa kër baay moo fi am